tëngërëm lañ leen di wax sa su nek rek ñi fo site internet di buzz mtv senegal bu leen fatte di abonné di buzz cloche de notification yi ngir dara bañ leen raw ci seen xibaar dal leen ak jamm mbokk internet yi fo di setan buzz mtv senegal cant ak ngërëm ñen leen ci top bi ngeen di top seen bi sa su nek comme ni joron koy waxe toujours bu fekke gan nga ci chaîne bi bu fatte abonné buzz cloche de notification bi aimé vidéo bi lolu dina ci am solo dina tax contenu bu bes bu ñu duggal ci seen bi daal di si mën a jot daal di koy aimé moo ngi noonu ñu ñëwaat nag si ay révélation yu am am solo bu ñu see ñëw nag ki nga xam ne moo di Mamadou Ibra Kane moom nag daat nay génn dafa sorti ginnaaw ba premier président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tase assemblée nationale moom nag li mu xam mooy li mu wax mooy sénégalais yi lay woo ñu nag maanaam sanctionné pouvoir bu bees bi fi nekk maanaam daal élection législative le 17 novembre 2024 sénégalais yi mu ngi leen woo ngir ñu sanctionné pouvoir bi maanaam daal nañ fexe ba dal élection yooyu buñu ko gagné ndax mom dal limu japp moy gën dal daal président Bassirou Diomaye Diakhar Faye li def dal téggu ko si yoon xeyna motax mu daal appel bobo nga xam def nako du ñak dinañ si ñëwaat seen xibar ñu bàyyi leen ak révélation yu am solo yi nga xam nak def nañ ko daa ngeen jëf bu lolu wéyee man waxon na fi bu yagg ni assemblée dañ koy tass je l'avais dit très longtemps parce que j'avais des échos ay renseignements que ni assemblée bi dañ koy tass parce que député ya fa nekk xam nañ ñoom la tax ñu teg tax ñun toog fa ñoom ñoom ay député Macky Sall lañ du ñu député peuple bi gis nga bu ñu yoroon comportement député d'un peuple peuple bi laa fi nekkal kon kenn du ko dissoudre assemblée nationale bi lu leer laa leen wax fekk dañ fekk ay député yu responsable ay député patriote yoo xam ni leen fi teg mooy askan bi moo leen fi teg lu lu ñëw bu dee njariñu askan bi ñu voté ko que des nga nekk député gis loo xam ne du sa njariñu parti waaye njariñu askan bi la ba nga voté njariñu askan bi parce que askan bi moo ëpp doole sa parti parce que sa parti si askan bi la jóge président dafay dem peuple bi day reste waaye tey ji ñu doon ay député député Macky Sall la ana ñu tey ji est-ce que ñooñu am nañu fit ak audace delluwaat si peuple bi naan falat leen ma ma nekkal leen fi te ñom ñu wane sen bop né Macky Sall lañ fi nekkaloon té Macky Sall new tu fi yalla rek fi nekk ak peuple bi kon on doit les sanctionner ces députés là loolu motax ñu tas assemblée nationale mais fekkonte ñu député yi dañoo benn comportement républicain comme tax ne peuple bi lañ fi nekkal kon assemblée dañ koy bayyi mu liggéey mu continuer lo xam ne ñu askan bi la bu ñëwé ah ñu voté ko amul problème loo xam ne bu dee njëriñu parti yi la nag lu ñu bëgg a dugal parti yi foog ku nekk défendre sa intérêt parti mais quand le peuple a besoin on lâche tout on est là pour le peuple mais ñoom yoruñu comportement boobu moo tax ñu dissoudre ko pour défendre l'Assemblée nationale rénover ko raxas ko indi ay député yoo xam ne dinañ xam lu waral ñu fal. Euh, ce message maa koy adressé à tous les patriotes du Sénégal Ce mot est patriote nag mooy à tous citoyens vraiment bi nga xamante ne bëgg nga sa réew gëm nga sa réew te gëm nga sa wa réew te bëgg nga sa réew mu jëm kanam muy réew di Sénégal maa ngi lay wax fi nga nekk à partir de fi nga nekk même boo nekkee au fin fond du Sénégal dama ne na ngeen battre campagne conscientiser vos familles par rapport à la responsabilité bi nga xamante ne moom lañ jël fal nguur gu yees gii nga xamante tey ñu ngi leen fal bu yàggul dara matagul sax huit mois matagul sax sept mois du assemblée bi fi nekkoon nga xamante ne c'était des députés du peuple nekkuñu woon député de Macky Sall nekkuñu woon dépité wu kenn kenn kenn mais dañu nekkoon député wu askan wi baatu askan wi lañu yoroon waaye mu mel ni ñoom seen propre baat lañ yoroon mu mel ni ñoom ñoo ko joxoon seen bopp tey la président de la république Bassirou Diomaye Faye tey bi mu ñëwee ne dafay tas. HTTC ak ñu euh, tëddee au conseil xaw ma lan seen affaire yooyu noonu xaalis yi dugg foofu mu ne lii am na feneen fu mu xaj ci Sénégal am na yeneen prop yeneen yitte yi mu mën a régler lu bokk la ak lii parce que jugé nañ ne njëriñam bariwut te loolu du moom rek moo ko wax naka jekk moom balaa muy accéder au pouvoir fekk na ñu wax ba toog yàlla def tey mu ñëw tey proposer leen loolu ñoom ñu bañ ko. te ñoom pourtant la ñuy bañ pourtant li leen président proposé loolu njëriñ Sénégal la kon nga xam ne kon donc ñii dañoo yaakaar baat bi ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo jël fal seen bopp te ñoom faluñu seen bopp mais plutôt askan wi ñoo leen fal ma yaakaaroon ne ñoom nag bu ñu fa nekkee askan wi lañ fa war a nekkal mais nekkaluñ askan wi mais seen bopp lañ fa nekkaloon kon nag ngeen xam ne. Euh, mbir yi mi ngi soog a tàmbali combat bi mi ngi soog a tàmbali léegi nag lay soog a tàmbali ndax nguur soo ko falee te amul majorité à l'Assemblée nationale et te pourtant ñii tey toog nii seen pexe nekkul woon tey dissoudre Assemblée nationale mais plutôt ñoom ñu ngi doon xool exactement ne ñii ndax vraiment danañ am sens vraiment wane ne ñoom askan bi ñoo leen fal may leen sens ñu rectifié wu. defaraat seen toogaay ba nga xamante ne bu ñu waree voté yenn budget yi duñ ko bloqué ba nga xamante ne bu ñu waree euh, euh, wuy ma joyantiwaat yenn yi ci biir gouvernement bi duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko duñ mais gis ngeen ñu étouffé affaire yi complètement kon ça veut dire ñii seen bopp rek moo leen ñor kon ça veut dire ñii Sénégal ci enjeu yi mu toll nii ah euh, kon donc moom ñoru leen ñoru leen. fi Sénégal toll ak fi Sénégal bëgg egg ak fi sénégalais yi bëgg yegg kon ñoru leen suñu doom yi di dem di jël gaal di dem di dee ci géej gi lijjanti wuñ ko ñoom seen yoon nekku ci loolu mais tey par exemple tey nit ñi tey suñu doom yi tey di jël tey yoonu Nicaragua ñoom loolu yëpp fregewu leen lijjanti wuñ ko sax kon nag dañu jël suñu responsabilité en tant que doomu réew mi en tant que doomu Sénégal ñu xam ne Sénégal su ñoŋee kenn duñ ko ñoŋalal kenn duñ ko defaralal ku dul ñun ñoo koy lu dul ñun ñoo koy defaral ñun suñu bopp kon nag jot na jeunesse su Sénégal jël seen responsabilité waaye magi Sénégal aussi tamit jël seen responsabilité xam ne kat wax dëgg fa la fii ñu bëgg egg euh, vraiment nañu jëlaat nguur gii nga xamante ne moom la ñu fal yees muy nguur Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko wax dëgg faal yu jëlaat leen jox leen tey majorité à l'Assemblée nationale ngir ñu dem ci ay réformes yoo xamante ne institutionnelles dem ci ay réformes juridictionnelles yu bétonné wu nga xamante ne kenn dootul salfaañee ak ak yeleefu Sénégal mais kenn dootul salfaañee ak ak yeleefu sénégalais bi ba nga xamante ne à tout vraiment dinañ fexe le tout incha allahu rabbi Euh, mën a gën a ñoŋal vraiment suñu nekkin fii ci Sénégal ba tey ba ba ba doomu réew mi doot ñu jéggaane di di dem di jëli gaal wala ñuy jël yoonu Nicaragua wala ñuy jéggaane di dem ci yeneen réew yi incha allah rabbi euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di leen ñaanal jàmb te di ko sàkku ci yéen suñu kàddu yi nag ñu yëkkati wax dëgg fa la lépp lu ci jub rek ngeen xam ne dëgg-dëgg ci jàmm bu matadi bi la lépp lu ci juba di rek xam leen ne tële wax la. waaye lépp lu ci jub rek ngeen xam ne ci yàlla mu mag ma la jógee ko vraiment ba tax na ñi ngi ñaan yërmande yàlla wàcc ci Sénégal comme ni woon ci yonante yàlla Muhammad salaay salaam ak ay saxaabaam yàlla na yàlla sàmm Sénégal sàmmal ñu suñu nguur gi sàmmal ñu le président Ousmane Sonko ak le président Bassirou Diomaye Faye jërë ngeen jëf.